salaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem kuy toppal 94 Walf Sénégal 94 point Sénégal FM nuyu nañ leen siyaar nañ leen rajo bi nga xam dañ koo lëkkaleeg sunu site internet bi di fal 94 Walf Sénégal TV émission xalaat ak gis-gis voilà xalaat ak gis-gis nag xam ngeen ku baax a baax a baax ñu leen koy defal fii. waaw ñu ngi leen nuyu nag bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax a baax di wax rek ngeen wéy di ànd ak ñun ci sunu programme programme bi nga xam ne nii voilà waaw xam naa ni euh, courant bi moo jotoon am problème moo tax voilà voilà 94 euh, point Sénégal euh, yaakaar naa ne programme bi nga xam ni dafay daw ci sit bi ak rajo bi. voilà euh, bu ko defee rek euh, ñu fàttali leen programme bi programme bi live ci la bokk live maanaam live euh, chaque ay bés voilà lépp loo xam ne war nañ ko waxtaanee rek dañ koy def live direct voilà beneen bi ci des tamit moo di lu jëm ci xalaat ak gis-gis muy amee fii ci rajo bi chaque suba beneen bi ci des tamit moo di lu jëm ci seen chronique seen analyse chronique xam ngeen ko bu baax a baax a baax a baax beneen bi ci des tamit moo di li xew ci bés bi. li xew ci bis bi xam ngeen ko muy actualité euh, li xew ci bis bi te nag actualité question réponse bi ñu leen di defal te ñaari nit ñi di leen ko defal muy Ibrahima Kaaga Ibrahima voilà loolu mooy programme bi nga xam ne nii wéy leen di ànd ak ñun saa su nekk rek euh, wéy leen di abonné di partager di sem di commentaire wax dëgg yàlla jàpp naa ne daal euh, gis nañ ne tamit yéen a ngi partagé bu baax yéen a ngi tamit sem voilà waaye commentaire yi nag dafa des dee leen gën a commentaire bu baax a baax a baax a baax a baax indi seen indi seen i xalaat parce que loolu moo tax seen bi jóg voilà ñu ngi leen di jaajëfal nag di jaajëfal nag sénégalais yi nekk ci diaspora bi yëpp partout dans le monde fépp fu sénégalais nekk rek jaajëfal nan la siyaar la voilà di wax suñu mbokk naar yi di leen nuyu di leen wax ne ahlan wa sahlan marhaba bikum fii 94 Walf euh, Sénégal voilà marhaba marhaba asi abonné partagé seen commentaire voilà di nuyu sama mbokk ya nekk fële nag ca diwaanu Maroc voilà di nuyu Assane Mbaye di nuyu ñoom euh, Mbaye Sène ak gaa yëpp voilà waa barrière baag ñëpp rek voilà di nuyu waa Kër Serigne ba waa ku ci mel ni monsieur Bekka ak ñoom Pape Sow ak jàmbaar yooyu macha allah di nuyu si Moussa Jawrin di nuyu tamit euh, euh, waa États-Unis sëñ Baara sama mag di nuyu tamit Moussa Mboub Moussa Mboub sama xarit. voilà di nuyu Italie gaa yi fa nekk góoraa nga fa voilà foofu moom sama gaa yëpp a ko fa ñoom Saliou ak ñoom Naroog gaa yëpp voilà di dem ba Espagne di nuyu sama taalibe nag sama taalibe Mor Ndiaye sama taalibe taalibe bu ñàkk njariñ di nuyu tamit Lafi sama taalibe di nuyu daam Dame attention di nuyu nag Cheikh Ndour di nuyu gaa yëpp di nuyu sama xarit Pape Diop depuis Espagne Pape Diop nuyu naa la nuyul ma aada waaw envoyé ma ko vidéo bi nag aada lu ma ko lu baree baree baree bëri fàttewu ma leen benn yoon nekk leen ci jàmm rek liggéey rek jàpp tëba rek voilà noonu la ca kaw ca kanam rek kan sama gars yi daal yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci diaspora di nuyu nag nga xam ne moom sama xarit waaw moom macha allah moom day indi ay idéem voilà di conseil voilà muy mbay Babacar waxoon kii sama mag la voilà mais macha allah xelam dafa sell te daf lay conseil lu baree bëri te sama rakk la mu nekk koo xam vraiment wax dëgg yàlla xelam sell na muy mbay Babacar sama correspondant ba nekk fële na la ca diwaanu Hollande voilà di nuyu Bamba ma nekk chouette Bamba Bamba sama jawrin nuyu nan la di nuyu gars yëpp rek voilà di leen wax ne rek wéy leen di ànd ak ñun saa su nekk rek programme baa ngi noonu jaajëfal nañ leen share na leen.